laay waxtaan ñu ngi ziar. laay laay. Euh, tur bi naka la. Khalifa Ababacar. Khalifa Ababacar tey nan nga gise appel bi nga xamante ne mooy 142e appel bu Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam. bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala ashrafil anbiya Seydina wa Mawlana mursalin Seydina imaamillahi kullu imaami imaamil aramin alhamdulilah ci laaj bi ñu laaj ci tey nu ñu gisee bés bi nga xamante ne mooy wooteeb Seydina Limaam alayhi salaatu wasalaam ñu koy màggal toogoon nañu ñaari at yoo xamante ne amul dañ ciy sant yàlla bu baax di jël njàngale yi nga xamante ne mooy liñ fi dégg jëmale ci ndaw yi ndax fi jamono ji toll nii wax dëgg yàlla delloo ci ndaw yi dafa jot donc kilifa yi niñ ci taxawee nii mu bokk ci njàngale appel bi donc loolu lu am solo la ci. macha allah nan nga gisee thème bi tey euh, bi nga xamante ne sëriñ bi sànq doon na ko développé borosoon na ci tuuti loo ñu si mën a wax tey. waaw li ñuy wax rek euh, mooy euh, ndaw yi euh, déglu ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi leen féete mag ndaxte ku la jiitu ci àdduna am na loo xamante ne ëppale na loo ko donc ñu bañ a topp phénomène réseaux sociaux yi nga xamante ne lu ci bari ay dérive la ñu topp ci li nga xamante ne nii mooy njàngale yi nga xamante ne boo ci muccee rek mooy li nga xamante ne boo ci toppee rek mooy li lay muccal donc ndaw yi ci loolu la ñu war a topp moom la ñu teg thème bi wax dëgg yàlla bañ a tombé ci li nga xam ne mooy extrémisme ak lépp lu jëm ci wàllum euh, euh, jafe-jafe àdduna li koy indi mooy am ay yar yoo xamante ne nii ay valeur yu am solo. macha allah sëriñ bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax. laay maxtaar laay. laay Momadou. ñu ngi lay ziar mbaa yaa ngi ci jàmm. ñu ngi delloo ziar bu wér a wér. laay maxtaar laay. laay laay tur bi naka la. Babacar. Babacar nan nga gisee 142e appel bu Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam. xanaa neex di sant yàlla bu baax a baax di ñaanal Serigne ablaay yàlla yokk ay leeram yàlla taaj ñu si barkeem waaw neex na torop macha allah. macha allah léegi yow nan nga gisee thème bi nga xamante ne Serigne bi sànq moom la développé muy extrémisme maanaam loo xamante ne dañ koy jëf maanaam ci jëfin boo xamante ne dafa xaw a ëpp nan nga ko gisee ak Serigne bi ni mu ko développé. dëgg la Serigne bi ni ko développé baax na torop parce que am na loo xamante ne nii waroo see yegg ba si bu dugg si bu baax a baax a baax a baax. nit ku nekk rek dafa am fooyam parce que sëriñ bi foofu la waxee même Seyna Laay sax noonu la waxee xam nga di rafetlu tamit débat bi bu baax a baax a baax macha allah. macha allah sëriñ macha allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax. salaamaaleykum soxna si ça va yaa ngi ci jàmm. ça nan la ak no euh, foo dëkk. Oulaye Kër Massar laa nga dëkk nan nga gisee 142 deuxième appel bu Seydina Limam alayhi salaatu wa salaam. Ah, maa ngi soog a ñëw de. Ah, yaa ngi doog a ñëw nan nga gisee organisation bi ak appel bi ni mu mel. ah neex na li ma fi jot a gis baax na organisation bi tamit. Euh, Laye Makhtar meen maa ngi lay nuyu. maa ngi lay maa ngi lay delloo nuyoo bi. Euh, Laye Mamadou Laye Laye Makhtar fan nga dëkk ak noo tudd. man Thiaré Géej laa dëkk tudd Binta Diallo. ah Binta Diallo nan nga gisee cent 142e appel bu Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam. neex rek ma neex rek ala dawme rek li doon ñaan lépp daal moom ba tey rek jugewul fu mu nekkoon macha allah rabika ñu toog ñaari at appeluñu léegi appel bi nan la def si yow namoon ngeen sikar namoon ngeen mbiri. namoon nañ lépp kay moo taxit kenn manqué wul namoon nañ lépp billaay namoon nañ sikar si namu lépp kay. lépp ci Baye Laye Seydou. macha allah nan nga gisee thème bi nga xamante ne sëriñ bi sànq moom la doon wax maanaam lépp loo xamante ne dañ ciy def mais dañ koy def ak excès maanaam ëpp mbir mu ëpp ak xale yi réseaux sociaux yi niñ ciy duggee mu ëpp yow nan nga ko gisee. ah li mu wax lépp dëgg la loolu moom dëgg lu wér la wax dëgg wér la wax macha allah li wax yëpp dëgg la waaw lool moom dëgg la moom. tey nan nga organisation bi nga xam ne bâche da dem ba côté bële tey ñu indi ko ba si côté bii nii nan nga gisee organisation ba xam ñi ñi toog nañ wala ak euh, lan nga fi gis loo xamante ne lu bees la ci organisation. moom kay lépp a beesaat moom lépp defar nañ ko ba mu baax dara manqué wul macha allah. macha ñu ngi lay jaajëfal bu baax Laye Makhtar. Laye Makhtar nan nga gisee appel bi ak euh, ren nga xam ne toog nañ deux ans appelu ñu nan nga gisee appel bi. waaw appel bi moom ñoo ko doon xaar macha allah di ñaanal sunu xalifa sunu xalifa bees bi Doudou Makhtar yàlla na fi yàgg lool te wér. appel moom yaakamte woon na ko trop Covid bi téye lu bari loo xamante ni ñu nekk ay laaj yoo xamante ni amoon na foo xamante ni marqué nañ fa trop. mais dañuy sant yàlla tey jii bi yàlla jeexalee ñu ñaan Covid bi jeex fi takk yàlla def ñu tegal ay appel apple appel appel appel appel moom wax dëgg yàlla kontaan na si trop am nañu mbégte lool laay Moxtaar. macha allah sëriñ bi sànq mu doon wax ci extrémisme maanaam loo xamante ne dañ koy jëf mais ñu koy jëf ak lu ëpp ak xale yi ak réseaux sociaux yi nu ñu ciy demee léegi yow loolu lan nga ci gis ak sëriñ bi lu mu ci développé. non sëriñ bi développé bi mu fi développé wax dëgg yàlla am na solo trop ndax fi mu toll nii réseaux sociaux yi fi mu nii mel noo xamante ni jamono fi mu toll nii xale yi ñoo ngi si def accès boo xamante ni moo ngi yàq lu bare si jeunesse bi lii nii da euh, euh, lii lu am solo loo xamante ni la loo xamante ni lu war a jëmale si kanam ñu xool foo xamante ni fu ñuy teg suñu tànk xool loo xamante ni lu fiy développé solution boo xamante ni lépp loo xamante ni dañ si nekk loo xamante ni pour ñu jëmale si kanam ñu jéem a suivre loolu pour doxal loolu laay waxtaan. sëriñ bi doon wax si éducation léegi yow éducation ndaw ñi ak jamono jii ni nga xamante ni ndaw ñi mel nañ ko ak jàngale bi ni mu mel léegi yow lan nga ci gis si éducation boobu noonu. ak ni mu sooxee léegi nga xam ne jamono ji éducation bi xaw na doy waar yow nan nga ko gisee. non instant yii na doy na waar trop dañu jeunesse bi waroon nañu ba delluwaat si renseigné boo xamante ni Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam jox nañu ko pour nu teguñu si teguñu si lu dul lu dul nuy tudd yàlla saa ne lu ñu tëj renseignement boo xamante ni jox nañu dox nañu pour ñuy dund diina lépp loo xamante ni mën nañ ko si ñu jëmale suñu àdduna kanam suñu ñun jeunesse yi ñu nekk si waaw. macha allah jërëjëf Laye Euh, sëñ bi ça va yaa ci jàmm. sant yàlla alhamdulilah. lay Maxtaar tur bi nan la. mbooy Laay. ah Boy ñu ngi lay ziar bu wér. delloo ziar alhamdulilah. Euh, Laay Maxtaar nan nga gisee 142e appel bu Seydina Limaamu aley salaatu wa salaam. waaw dañuy sant yàlla ci bis bi xam ni loo gis moom dafa tombeek dogal ndax lii amaana noonu la ko yàlla bëggee woon ala kulli xaal noonu lay demee nit moom bu dee da nga jokk ci moom lu dul lu la wax moom ngay def te amaana loolu sunu borom subhaanahu wa woon la. kon da ngay dal ba sunu boroom mi nga xam ni moo ko fi andi woon ci coobare mu delloowaat ka fi. macha allah ñu toog ñaari at appelu ñu ndax coronavirus léegi yow nan nga gisee organisation bi nga xamante ne am na fii ren. waaw sant yàlla organisation bi moom rafet na te vraiment euh, jaar na yoon te euh, mooy li ma wax sànq rek mbir moom bu ñëwee day am nooy nooy feggoo bu ko defee ci kanam lu ñëwaat di nga mën a xam ni ñu koy doxalee ndax loolu lu nu bettoon la bu ko defee day laaj organisation bu baax. bu ko defee ñu teel see euh, ut suñu jël suñu matuwaay bu baax. Serigne Serigne trop wax dëgg macha allah Serigne bi sànq da doon wax. ci euh, rôle éducation. ci extrémisme extrémisme buñ koy wax mooy maanaam ngay def dara ci def boo defin boo xamante ne dafa xaw a ëpp yow nan nga ko jàngatee. waaw euh, loolu ma wax noonu yonent yi nga xame ni mooy yonent bi nekk sunu ginnaaw di yonte yàlla Isaa ak baayam di Seydina Limaamu mi nga xam ne mooy Seydina Muhammad yàlla ñëw andiwaat ko fii ci axru zaman mu ngir ay jikko ndax gis nañ tur wi imaamul mahdi mu ni maanaam kay jubal jaam ña kon jikko daal la nga xam ni mooy euh, moo ko tax a jóg ngir ñu fóotaat jikko yi teguwaat fi nga xam ne fa la yàlla bëgg mooy subhaanahu wa li nga xam ne mooy am njàngale mooy am doxalem ni bëgg nit mel ko loolu mooy rôle am moom nag loolu bokk na ci li nga xam ne ku tënku ci moom di nga fa tënku bay yu bari di nga ci may. maire maa ngi siyaar laay waxtaan. laay laay Mamadou Mbaa yaa ngi ci jàmm. yàlla nan nga gisee 142e appel bu Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam. rek macha allah di sant yàlla bu baax di bokk ci luñ ko doon sant di ñaanal ñëpp ñaanal ñu ñaanal ñëpp ñu ñaanal doomi aadama yëpp ñu ngi ñaanal ak amiin allah macha amiin neex na trop Seydina Limaamu moom da dul doy waaw dañu ko waaw macha allah. macha allah macha allah. léegi léegi sànq ñu ngi doon wax ñu ne ñaari at lañ toog. defuñu appel yow ñaareelu at yooyu ñoon ñu toog tey namoon nga si sikar namoon naa ko torop moo tax jaayu naa bu bëgg a dee macha allah waaw man daal li may ñaan daal mooy xutbay naa alimaam bi na ci la laayeen yi delluwaat waa te ñu justice bi ak lépp loo xam ne Sénégal la nekk rek nit ñu delluwaat ci ci ci ci yàlla delluwaat ci naa seen alimaam parce que lépp ci loolu ci la ci la nekk jàngale na lépp sëy seen alimaam moo di feeñoon démb fële ci màkk moo ñëwaat fii ci saw jant bi feeñ kookoy Seydina Limaamu nañ xam nañ nañ dem xooliwaat ko nañ gëstuwaat nañ xoolaat lan mooy ay jàngaleem ñu jëm koo ñu jëm koo jëfee suñu jeunesse beeg yëpp man daal loolu laa xam ne moom sama xol la nekk xam macha allah foofu nga dugg noonu foofu nga dugg noonu sax dam fa laa fas yéene wax ak yow ndax tey boo xoolee suñu tem mooy le rôle de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme léegi euh, yow loolu noonu nan nga ko jàngatee ak tey éducation bu ñu gisee ni mu suuxa ni mu ni ndaw ñi éducation commencé suux ak Seydina moom alayhi salaatu wa salaam ni mu jàngalee ci xale yow nan nga ko gisee ak thème bi nga xamante bi développé. waaw dama si kontaan parce que dafa nekk dafa mel ni pour dindi suñu blanc. macha allah mais mooy li ma wax rek nañ delluwaat ci njàngaleem parce que bu buñ ci delluwaatee rek dinañ mën a nekkaat nit ñi nekkoon parce que lépp ci maam maam ya na ñu nekkee woon. ñun dañoo defe ne dafa metti mais bu ñu jëlee du démb jël du tey boole ko mën nañu am lu ñu lu ñu soxla waaw man foofu laa ñëwaat ak xale yi ndax lépp lépp rek mu ngi ci éducation te éducation seen alimaam da cee jël lépp lépp la jël. lépp lu lépp loo nga ne war na tabax doomu aadama rek defaral nañu ko foofu yow dugal na ko ci xutba yi nañ delluwaat daal ci xutba yi jàngaat ka macha allah yow moom référence su Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam comme comme ni ma ko jàppee yow noonu nga ko jàppee maanaam dellu ci xutba yi ak alxuraan. macha allah ñu ngi lay jaajëfal bu wér. laay Maxtaar laay laay. mbaa yaa ngi si jàmm amay jàmm ba. nan nga gisee 142e appel bu Seydina Limaamu. sant yàlla rek sant yàlla julli ci Seydina Limaamu xam ni moom moom la yàlla yónni démb ak tey affaire moom amul werante dañuy sant yàlla bi su mbégte la daal. macha allah nga gis ñu toog ñaari at defuñu ñu appel Euh, namoon nga mbir yi. ii bu baax bu baax bu baax sama xol bi kay sant yi wax dëgg yàlla def na glace. waaw namu naa bu baax bu baax waaye daal ñoo ngi sant yàlla daal bisu sant macha allah sëriñ bi doon wax ci éducation maanaam yaru ndaw ñi. Mhm. Euh, di wax ci extrémisme maanaam loo xamante ne da nga koy def mais ba nga koy def. Euh, par excès maanaam mu jéggi dayoo yow loolu nan nga ko jàngatee. waaw ah non li ma ko gisee moom xam nga jamono bi moom fi mu toll nii léegi àdduna bi dafa doy waar mais Seydina Limamou moom li mu indi moom wax dëgg yàlla buñ ci tënkoo rek non du ñu réer du ñu réer du ñu réer chaque jour daal dañuy wax ndaw ñi daal nañ dellu ci yàlla rek affaire bi daal dellu ci yàlla la boo delloo ci yàlla daal dara si àdduna du la du la du du kii sa bët daal. Laay Maxtaar. laay laay. mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm sedd guy. Euh, nan nga gisee appel bu Seydina Limam alayhi salaatu wasalaam bii di 142e appel. waaw xanaa ànd ak mbégte ak kontaante rek ndax boo gisee appel bi ñaari at a ngi nii defuñu appel bi. ren boo xoolee mbooloo mi tubaarkàlla macha allah dafa gën a yokk parce que ñëpp namoon nañu lii nga xam ne moom mooy woote Seydina Limaamu bi ndax contexte bi nga xam ni mbas mi moom moo fi jaaroon loolu moom moo tax boobu ba léegi defuñu ko mais mbégte ak kontaante rek moom nañ si am li nga xam ni moom la fi sëriñ bi jot wax nag lépp njariñ la ndax tey boo xoolee éducation lu jëm si ndaw ñi boo xoolee ndaw ñi ñoom ñoo yor ëllëg te tey boo xoolee si jëmmi boppam sama première sama bopp koy commencé ndaw ñi xamatuñu fan la ñuy teg seen tànk te réew bu dee dox rek ndaw moom moo koy doxal l'islam bu dee dox tamit ndaw moom moo koy doxal lépp la nga xam day dox rek ndaw moom moo koy doxal mais ndaw lu mu doxalul rek loolu du mën a dox. moo tax maa ngi am mbégte ak kontaante bu baax a baax te li mu wax li yëpp apprécier naa ko bu baax a baax a baax a